njiitu réew mi son excellence monsieur le président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall nee na daal moom mën naa jël ndogal ngir libéré ñi nga xamante ni tegoon nañ leen loxo te ñu bokkoon ci manifestation yi waaye nag daal dafa am charte bu mu ciy la loolee daal mooy bépp manifestation ñu dakkal ko ci réew mi dootul am daal benn manifestation ci réew bi ndaxte it bu manifestation yi amee dañuy jàppaat nit ñi rek te boobaay dañuy jógaat naan bàyyi bàyyi leen nit ñi bàyyi leen nit ñi waaye daal li tax daal mu mën a libéré bépp détenu bu nga xam te ni jàpp nañ la ci jamono manifestation yi mooy ñi assuré ku ni manifestation dootul am ci réew mi